ñu leen di baal ak di nuyu ñëpp di nuyu responsable politique yi fi nekk di nuyu kilifa yi fa nekk di nuyu Sénégal yëpp di nuyu Fuuta yëpp mbooloo mi barke Dembo Njaay kër Farba Ngom dafa am lu fi xew lu ñaaw lu ñuy mettitlu ndax alaji Farba Ngom ku ko xam xam ko ci baax xam ko ci social xam ko ku ci bugg nit ku yaatu ñun daal ñoo ngi ñaawlu lu xew li ñoo ngi ñaan aussi population bi di ñaan ñëpp nañu àndal dal parce que lépp ci dal lay xewee te ba ngoom aussi dafa ñaan ñun ñëpp ngeen ànd ak dal lépp ci dal la jàmm ci dal lay amee di remercier aussi population bu Ngor diggante Farba ak waa Ngor jàmm fa am jàmm fay am jàmm mooy amat tamit parce que seen diggante dafa rafet nekk na loo xam ne mbokk la xarit la lépp ba barke Dembo Njaay ñoo ngi gërëm jaraaf ñoom moom tamit wax na lu rafet te lu rafet rek moo ci am kon foofu amul lu ñuul lu weex tàll la waaw bu ñu paasee ci loolu lu xew nag dafa nekk loo xam ne lu doy waar lu nit mu nangu nga tabax sa kër ay nit ak samba booy jógee fee yàq yàqet kër gi dafa metti dafa ñaaw heureusement ñu ngi remercier les forces de l'ordre qui sont à l'heure ak sécurité bi fi nekk moo tax bakkan mun na fi tuur waaye nag ñun ñoo xam ne ñooy responsable politique ñun ñoo xam ne ci njabootu Farba Ngom lañu bokk ñun ñoo xam ne ay mbokk ay xarit lañu ay doom lañu ay nijaay lañu ci Farba Ngom ñoo taxaw tey jaakaarloo ak Samba Boy xam nañu seen programme xam nañu du ñu bëgg ñoo ko waxoon fii mais nag dafa am loo xam ne munu munutul am parce que bu fekkee am na ay politiciens yu bubboo ci suuf di def yu ñaaw ñii amuñu vision amuñu programme seen vision lenn la yàq kër jàmbur yi yàq administration bi yàq lépp bu fekkee nag ñoom lañuy ñuy waxal ñoom bis tey duñu xam ne Farba Ngom am na mbokk am na xarit am na ay sympathisant kuy sànni di daw du lakkatu doo góor doo guerrier bu fekkee guerrier nga da ngay jàkkaarloog ñun face to face ñun duñu daw góor du daw fii ñu fi toog yëpp ay guerrier lañu duñu ay tapet def leen face à face ñu xam leen yéen doo leen dara mais nag comme que ñun dañu ànd ak dàll lépp lañ koy teg ci loxo yoon te xam nañu état dina def lu mu ci war du ci wax lu bari ci enquête bi mais état di ñu def lépp du ci war ñu wax la nag pare nañu pour lépp pare nañu pour lépp samba booy am na ñoo xam ne nag li ngeen yaakaar ne du dina amaat du amaat ñoo ngi leen di gërëm di leen sant euh, di leen wax aussi bonne fête de Korité merci